لا اله الا الله بايبال ما ترى رب لا إلا لا قائفا لا إله إلا الله قائفا شخص رنجاي يدبر رب لا na laa bay faal Cheikh Bara Ndiaye yéde door yab la te nekk suñu sàmm del ndax dafa am rek moom moom moo la mën a musal ci lépp lu war a àdduna ak alaxira gi mu jëm sàmm moo tax ñun ñu di bañ wallaay ñàkk sàmm rek moo waral rek mu ne jànjante kenn lu ko roy ñoo ko sàmm ñoo ngi ñaan nga yàgg fi lool nga sanaak lépp def fi faal ñu la gis itam allah jërëjëf sëriñ Tuuba yaakaar yi sant bi doon doog a tàmbali sëñ bi day jël ay kàddu rek mu yàgg waaw léegi fu may toog sëriñ bi nee na nga jigéen Euh, nuyu naa leen bu baax euh, tey nag nan naa bu baax a baax jàppoon naa nag euh, ci waxtaan ci ay point jëm ci màggal gi yenn yi jëmoon ci ñun jeunesse nga xam ne ñooy màggal beneen point bi ci des jëmoon ci kilifay réew mi ak kilifay dëkk bi déglu euh, xam naa ne daal xool naa ko waaye soj mi mayuma ko waxtaan wi moom xam naa du yomb ci man tey incha waaw waaye nag kontaan naa man ma leen laaj yéen baa kontaan ngeen kontaan ngeen bu baax kon jeex na ndax sànq bi ngeen di tëgg rek maa ngi xool ñëpp ñu ñàkk tooy xëpp ma xam ne ëllëg yow mal xiyaam bu suñ borom taxawalee jaam dañ ne cër yëpp ay wax waaye bu ñu laajee ñaq wi génn ci yéen lu tax mu génn ci yéen ba ñaq wi ne man de ma génne woon ci Mamoun Diop wala maa génne woon ci Maas walla ma génne woon ci jëwrin maam Saaliw yàlla ne ko lu tax nga génn mu ne dafa am ngoonuk 18 safar ñii way sa wenn wàlliyu bu ñuy wax Ahmadou Bamba sama xol sedd ma jóg di wane xol bu sedd bi ba ñaq wi génn ci man. di ngay liggéeyal sa borom ñëpp weddi woon seen borom ngir ragal seen morom te ba weddee sa borom ngir ragal sa borom bis dina ñëw di nga wéet ak sa borom sëriñ bu mag bi ànd naa tubaab bi juróom-ñaari at lu teg juróom-ñaari weer mosul ni woon masul ni fu ma jëf man tiitul bëtam raful te neewul fu ngeen ko jëme moo gore àndam ngor salloo ngorom wëttalikoo ngorom ba ful ngoree di fa ñoom ba dem si Touba daa di taxaw fii ci waaxul musaasiri ci koor dan wool leen ma Seex Anta Gaawaan mu ñëw ñu woolu maam Seex Anta Gaawaan bu ñëw si Bamba ne ko Seex liggéey naa bu ñëw ah waat naa ah wàcc naa ah wàccaaleel naa leen ah wàccaaleel naa képp ku ma yaakaar si Bamba ne ko Seex xare ki dee dàqul ki daw dàqul ni ko Seex jaloore borom ma koy jittalil borom gaskiya tubaab ya naan kii na leen ko libéré mu dem nu naan suñ ko libéré dañuy am nu ne kon nu muy def nu ne kon nu eh, muy def. maamul maamul naanu maamul dëkk noom nuy dem. maamul nuy dem nuy dem. taxawal taxawal. nu ànd ak Sëriñ Bamba nuy dem. nuy dem yomba ji day dem ñuy dem. nuy dem ànd ak moom nuy dem. nuy dem Bamba ji day dem nuy dem. nuy dem sopp Sëriñ Tuuba day dem. day dem Seex Seex Baara Jaay day dem. day dem Seex Daaru Asan day dem. day dem. sëñ Abdu Xaadir day dem. day dem Seex Fasil la jaay day dem. day dem Bamba ji day dem. leen yàllaay seet bu may dëkke leen du ko dakaaru leen du ko dakaaru leen du ko dakaaru am ma jaaxal leen demee si kaw

mooy sant sëñ Touba lii mooy sant yàlla waaw waaye jógee ndakaaru ñëw ba Touba ne da ngay sant si yàlla ñëw mel na dëj loolu duñ ko def dañuy tëgg di fecc di way di bëgg ci sëñ Touba waaw pour ñu tëkku ndax ndax fecc bi bu yow mal xiyaamee bu yàlla laajee ñaq wi li ko génnee ñaq woowu moo ñuy dugal nañu ñun waaw kon nag maa ngi nuyu waa koñ bi nuyu waa kër sama famille kebe kebe yëpp sax laay wax rek benn ak sama maam yu baax yi fi nekk soxna say Njaay mu sëriñ mbay fatloo mu sëñ mbay euh, euh, sëñ lu euh, mu tuddati <coughs> sëñ moom mooy dara tey sëñ mbay faaloo Njaay soxna say Njaay mu sëñ mbay faaloo Njaay soxna Mbacke Diaw Baye Ibra Kebe ak sama nijaay Moudou Mbacke Lo sama nijaay Cheikh Lo ak ñoom yaa fa njaay ci ñu gën a takktoo soññee bi sant yi nag sa bàyyi naa ñaar ñoo xam ne wala ñett ñoo xam ne moom xay na waaw bàyyi naa sëñ Dame Mbacke mii toog sama ak Fallou ñaan ñooñu moom euh, daanaka ñooy man ñooy man maay ñoom moo tax jëluma rek ni sant ak Ablaye mii toog ak sëñ Lamine mu sëriñ Basiirou ko jajang mee toog jóge guy mint ak sëñ Jiiri Sëy tey daal famille bi famille def gis bépp a waaw def gis famille moom ñëpp a ngi fi kon nag Euh, santaat yàlla euh, julliwaat ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallama santaat ki ñu fi dajale muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul dama bëggoon nag kenn ku nekk ci ñun xam ne yàlla mi nga xam ne moo ñu bind desee lu ñu dara desee lu ñu dara ñun waa Touba yàlla desee lu ñu dara ñun waa Kër Sëñ Touba amul kenn ku nekk ci kaw suuf jant bii di la tiim sa bopp jëm kaw say tànk jëm suuf ku yàlla gën a bëgg ci ñun murid amul yàlla dafay wax ne faddullahi ngëneelul yàlla wala rahmatullahi yërmande yàlla yuuti man yasaa ku ma neex laa koy jox ku neex laa koy jox nu ma neexe laa koy joxe fu neex laa koy joxe waaye Sëriñ Tuubaa de bu suñ borom doon topp logique bi doomu aadama di doxe dañ naan nit ñu ñuul ñi mënuñu koo moom ndax ay mayam ci kanamu boroomam dafa nekk may yu kawe ànd ak moom muy tàbbi ci ab wooteem nekk mbir mu gaarante saahiran wa baatina dunya ak laaxira ni muy jànge xal alxuraan ji ak nit ñu koy jàngale amul kenn ku mas jox xéewal gu toll noonu saw ñoñ kon nag yàlla bi ñu joxee Sëriñ Tuubaa desee lu ñu dara ñun nag nañ fexe itam ñun ba buñ deseel yàlla dara mooy ñu jàpp Sëriñ Tuubaa bëgg ko gëm ko doyloo ko wóolu ko loolu rekk bu ñu ko defee danañu dégg galen mooy dégg dag xam li ñu yàlla jox xam naa soj mi ak wéradi gi mayuma waxtaan wu yàgg tey waaye loolu daal bu ma sañoon ku nekk di ci bàyyi xel xam ne yëf yi du ab juddu rek juddu murit laa nangam nangam déedéet ab dégg-dégg lay nekk nekk philosophie nekk ay xalaat yoo xam ne da koy xalaat sa biir muy jur ay bànneex ci yow di yokk ci yow fit di yokk ci yow ngor di yokk ci yow ak góorgóorlu murit ku mu mën na doon ci ñun mu leer ko ne teg na sëriñ tubaab fi nga xam ne bu àdduna bépp xëyoon bàyyi Serigne tubaab moom du deng dengit benn benn seconde loolu mooy jàpp mbir waaye riir mi nii rek amul solo. fexe leen ba def ko muy mbirum pas-pas bu ngeen ko defee muy mbirum pas-pas di ngeen ci jële fulla di ngeen ci jële fayda di ngeen ci jële fit te gis nga fulla ak fayda ak fit bu dajee ci nit rek xaalis xaalis day am moo tax sañ Touba ñi ko toppoon mu mujjoon ñoom ñëpp nekk ay milliardaire te ki leen def milliardaire du laal xaalis moom mooy def leen a jox fit bu mat sëkk jox leen ngor gu mat sëkk jox leen doylu gu mat sëkk xaalis ñëw ñeenteel ko waaye dafa am benn baat bu am solo moo xam ne mag dama koy wax bëggoon naa ko wax sax waxtaan ci toj ko bu baax a baax mooy ndaw ñii léegi ni ñu jëlee ak wóoradi def ko muy am xel jàpp ne fen dóor trian wuruj wax ak nit ki war ko loolu mooy nandite dangay gis ko fen fen wu rëy naan man may nandite koo xam ne comme séqal dóor la jaxase la jël portable yi jàmbur yi di jaay di jaay portable yu baaxut di nax nit ñi lu ne nga dugg ci loo wax du dëgg defe na yow ak yeewute la fekk loolu gone bu nekk ci ñun war na koo moytu loolu mooy ñàkk xel gi gën a suufe ci àdduna mooy fexe ba doomu aadama yi xam na yow wóoroo xam na yow doo wax dëgg xam na yow doyoo dara wóor ku ko def ci yéen nga xam ne wóor na ne la yow wóor nga doo fen doo wor bu ko nit ñëpp xamee ba xam ne kii daa wóor nit ñi balaa ñoo liggéey dañuy am capital tey ku bëggoon a tijji palaasu karo wala palaasu tailleur da ngay wuti capital doo ko am place nit nag bu wóoree cim penc ba ñëpp xam ne kii dafa wóor capitalu nit ñi moom mooy capitalam dangay toog fi nga toog ku dem liggéey capital ba ñëw jox la ne la saawaay dencal ma ku liggéey capital ba defar karo ba mu yegg palaasu karo ne la am toogal jaayal ma ku jógi ku nem Europe sax bëgg lu mu dénkaane wala lu muy tabaxlu ne la am saawaay tabaxal ma ku yor oto buy jaay ne la am saawaay jaayal ma yow jërul ngay wut dara capital bi nga yor mooy wóor gi nga wóor ba ñëpp xam ne da ngaa loolu moom bu sañoon baaxee leen ko ngeen bàyyi ko xel xam ne nit saa bu ñëpp xamee ne wér nga ñoppi nga ñàkk dara ci àdduna saa bu ko leeree naññ man mii bu ma xamee ne diw mii day fen am na samay wax yoo xam ne du ma ko wax su ma wóoree ne diw mii day wor am na lu may dugg loo xam ne du ma nangu mu ànd ceeg man ndax dafa may waree du ma ko xalaat ma wóoree ne diw mii tamit amul kóllëre day bàyyi day fecc kóllëre am na mbir yu may dugg du ma dugg ci ngoro yëgal ko ko du ma tukki ànd ak moom te bu boobaa ñëpp buñ la defee noonu nga ñàkk sens saa yu ma leeroon ne diw mii kat xaalis moom wax dëgg yàlla da cee wóoru fu ma mën a nekk ñeme na maa jël nangami million jox ko su la fukki nit wóoloo jox la ku ne nangami million bu yàggee bu sa aajo faju loolu bëgg naa ngeen bàyyi ko xel xam ne ay fen ak ay tappaleeg ay dóor ak yooyu ngeen di wooyee nandite du dara ak dof dong la na ngeen wér adduna boo waxee senegal ñu ne xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti loolu du dëkk amul fii kenn ku ngeen gis mu am étage wala mu am dara te liggéeyu lijjantikat yëpp dee nañ bu yàgg ñenn ñaa ngi ci kaso yi loolu moom man wan leen ma Touba gii alal li lijjanti amu fi loolu ku la ko wax dalay nax gis nga dafa am dafa am benn comme commerçant yi buñ demee Dubaay di jaay naar yi buñ boo jëndee ay yooni yoon dañ lay wóolu tàmbali laa jox matériel bagage nga indi senegal boo jaayee werse leen ñu joxaat la gaa yu bëri gëmoon ne xaalis dañ koy lijjanti ñoom biñ ñëwee ñu jox leen conteneur dañoo jaay rek lekk xaalis bi ñimeetuñoo dugg Dubaay man xam naa ci koo xam ne Touré la sant moom danoon def saa bu jaayee dem jox naar yi bu ci amee weccatam jël def ci poosam naar yi lebalaat ko li ma lay wax nii fukki at ci ginnaaw la gis nga ñu naxoon naar yi ñëpp kenn ñemewut a duggaat Dubaay moom mi dul woon nax naar yi mooy indi conteneur bi gars yi wër ko ñi doon fenkat yépp wër ko mu leen di jox xaalis mu leen di jox ci bagage yi xaalis liggéey rek moo koy may doomu aadama bu dee mbedd moo dem lijjanti fa mooy fen ñi dàqale fa bu subaa nga dugg ma neen mbedd ñi dàqale fa bu yàggee waxuma la am xaalis waaye sa néeg doo ko génnati bay tabax dara wala ngay am dara loolu yépp na ngeen ko na ngeen fexe ba mu génn ci seen bopp yi ay xaalis kenn mënu koo liggéey xaalis liggéey lenn dong koy liggéey mooy nit ku nangoo liggéey dong mooy am xaalis képp ñu ngeen déggoon ñi jaay dorog jàpp nañ leen ñi doon këfaatoo ko sàcc tëj nañ leen ñenn dóor nañ leen bañ dee ay unoog elex sa gars yi nga fi doon dégg yépp ñii vingt ans prison ñii suul nañ leen bu yàgg inoo jamono dañ koy tëj ak a dàq kanoon bitigu mbagg Tahirou Sarr mii may murid yi quatre cent milliards quatre cent millions yi kenn ku ne di coow bi muy ñëw dakaar bitigu mbagg la yor di ambila daan na siiraas ay dàll jub du tux du naan du tappale du doxaan ci loolu la topp ba ba mën a am quatre quatre quatre cent millions yu muy may ay ay nit boo demee këram dañ koy rang nii muy maye loolu bu doon ab lijjanti la fenn na bañ tëj ko bu yàgg wala ñu tëj ko ci kaso bi dóor ko ba mu dee képp ku leen di wax liggéey luy luy teye nit liggéey mi ngi lay nax képp ku naan la dam ay wor wala fen walla nañ dóor wala nañ ko nax walla gaa yi nañoo daf nam jaar seen kaw wallahi mi ngi lay mi ngi lay doya dal koo nax bu ko xamee bàyyi na la ku ñëpp bàyyi nga tumuranke ni intelligence dëgg da ngay fexe ba doomu aadama yi sopp la bëgg la di jëflanteeg yow nit ñi ñoo dul nangu nga am benn jafe-jafe nit ñi ñoo ko dul nangu waaye nit nit day nitee loolu damaa bëgg ngeen bàyyi ko xel bu baax loolu moom daf ma ñor parce que suñ dëkk bii bu yàgg tuuti ci ginnaaw bi may nekk xale damaa gisoon nit ñi dañoo nangu woon a liggéey mais léegi nii gars yi dañoo defee ne affaire bi ay lijjant yi tag-tag la tag tak moom amul comme masa may dara dama leen koy wax xool leen koñ bii ba mu jeex tag même ñi dem Europe ñi jóge fii tukki dem Europe nekk fa tag-tag tag nañ bu yàgg maa la ko wax ay ñoom bàyyi seexloo bàyyi gay ne njaay ñoom bàyyi daam kebe meeg baay bàyyi kebe mii moomoon kër gi dangeen ngeen dem leen ngeen waxtaan ak ñoom ngeen xool seen i fan lañ jaar boo gisee ñu mën a dem at mu ñi ñëw di dem di ñëw liggéey képp la ñuy def waaye ñi demoon nekk fanaan dañuy tak dañuy dañuy tak tak xaalis bi mu ñëw tak nañ dañ dañ leen di tëj baa ñu dóor leen ñi ñibbisi loolu dama leen koy dénk bu baax ngeen def ko seen xel saa boo demee bay bëgg a fenn nanga xam ne yaa ngi bëgg a def li nga xam ne yaa ngi bëgg a doye nit day am dignité day digne démb ma tey ci suba bi ma demee ci banque bi dama faa dajeeg benn waay maag maam daam mi xaw ma maag Jili Njaay ñoo taxaw di waxtaan ak moom mu gis ma ma yor kurus mu ñëw nuyu ma ne ma mbàkkee ma ne ko waaw na nga def mu ne ma xanaa yàlla yàlla nga ma ne ko waaw mu ne ma dama laa gis li nga toog ci banque bi yëpp yaa ngi wér di rek ma ko waaw moom kay tabarkalla mu ne man yàlla yàlla laa taalibi seex xaw ma nan laa après ñu waxtaan ma ne ko moo ne man du ma yàlla yàlla sax waaye damay wér rek mu ne ma non damaa foogoon ne sax loolu la quoi affaire ñuy waxtaan mu ne waa jox ma jox ma ma dépasse waaye ma ko saa yaa ma xaalis mu ne ma ah ma ko mën na maa waat ne li nekk sa poos bi nii yëngu sama poos mu ne ma loolu noo ko xamee ma ne ko wax waatal wax ma dëgg rek ñaata nga yor mu ne ma man xeeb naa sur ne trente cinq mille bu weer wi bu commencé la 5 ba la quinze xeeb naa 35000 bu weer wi soree 20 25000 dama koy am léegi alors ñun dañuy romb benn waay bu toog ñu naan sawa na def ah yërwaankat bi ndeysaan fekk mën na laa jënd mën na laa jënd dégg nga mais tey xam nga wax naa leen ne yalwaan mën naa génnee vingt cinq mille mais yéen kenn ci yéen suba du dem taxaw fee di yalwaat tam xam nga ne mën na laa may vingt cinq mille mais kenn du ko def parce que xam nga lan moo tax mën na laa may xaalis waaye da nga koo jomba def parce que nangam parce que nangam parce que nangam léeg-léeg yéen mën naa dëgër ba doo reer mais doo dem taxaw ci kër yi di yalwaan reer salaamaaleykum sarax leen ma reer nga muñ bañ a reer moo la gënal nga yalwaan ko c'est parce que da koo jomba def noonu la nag noonu noonu gis nga jomb boobu boo demee ba agsi ci jomba fen jomba wor jomba nax nit ngay doog xam ne nag maanaam nit balaa mat balaa am valeur dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg day bàyyi yooyu yëpp su fexee ba bàyyi fen bàyyi du war kenn du fen kenn gis nga tey par exemple dama lay wax fii ma toog nii am na nit ñoo xam ne tey dañuy ñëw dugg fii toog man de Cheikh Bara kër ga bàyyiwu ma fa dara tabaski gi sax am na ku ñëw ne ma damaa leboon am xar sax yaakaar la xar mi nangam nangam coow coow coow bi muy dem dix mille francs laa yëkkati jox ko parce que xam naa ne day fen day fen tëdd naa bisu tabaski sama soxnaa ngi nii bañ ba fajaru tabaski avant ñuy julli ji ma xam koo xam ne wóor na ma ne du fenkat mu ne ma man de sëñ bi aw ma xar aw ma xar man tabaski gi jàll avant may egg jumaa ja julli nañ ba pare dama ne du ma dem jumaa ja te amul xar parce que xam naa ne fenut sikk sàkk wu ma ne amul xar damaa dem lijjantil ko booba heure bi war yi ñëpp tëj may woote ndakaaru ko ma woo nga tëj damaa lijjanti ba yónnee ko 60 000 mu jëm jënd xar parce que xam naa ne kii ma wax amul xar amul xar mais am na keneen koo xam ne même bu amul woon xarit bu ma ko waxee day day du amul xarit ndax comme ko wax ma ne ah day fen rek kooko wax mu ne day fen léegi fooy jëlem xar fekk yow dangaa ngaa ne fen dalay may dara fekk fen mi ngi moo lay xañ ba ëllëgee benn waaye day toog dégg naa jékki-jékki ne woo sàcc bi sàcc bi sàcc bi nit ñëpp daw dikk mu ne ndax naa leen yéen a daal naa leen ndax naa leen nit ñi dem tëddi far sàcc ba ñëw na mu ne woo sàcc sàcc sàcc sàcc billaahi naxuma leen kenn faalewu waaw fekk daal njëkk fen dafa njëkk a fen loolu moo moom laa bëgg ngeen bàyyi xel bu baax àdduna nit gole li may wax nag yéen ñii laa koy wax waxuma ak ñii nii de ba ñii de gone bu amee xam-xam nekk nit ku dëgg mën naa mujj fu ne mën naa mujj ci loxo yi ku ne tey sëñ Muntaxa boo demoon nga toog nga waxtaan ak moom ci dëgg dëgg dëgg tam tam tam wax la dëgg danaa la man ñi ma xam ñëpp gisuma ci ko wóor ñëpp dañuy fen rek koo ci mas a dénk xaalis ngeen séq ko nax na la baa ma wóorul la nga xam ne sëñ Muntaxa dong bu doxoon ba dajee kuñ ko ne kii moom ku wóor la du sàcc du fen billaahi ci wetam la lay teg loolu mooy richesse bi gën a rëy ci àdduna fi mu nekk nii am na kilifa yoo xam ne maanaam ku wóor ku ñuy dénk ku ñuy xaalis ñi ko yóbbu ca banque ba suñ soxlaa xaalis nga génn leen ko ci banque bi ku ko mënoon te doo leen nax doo leen fen bu buñ la doon fay surne sax mën nañ jaral na leen waaye koo ko defal ñaari yoon ñetti yoon mu dóor la jàll dem yoon bàyyi leen ko xel bu baax xam ne saa ni ngeen rusee taxaw fee di yalwaat na ngeen rusee noonu fen na ngeen ruse noonu nit wóolu la nga di ko wor na ngeen ruse noonu naxaate mag ñi ñoo naan business business business paa bi de business moom bis noos la bis noos bis ñoos bis business nee na benn bis noos ngay def ñu naan oh saa de am na oto de beneen bis ñu ne la noos tee beneen bis ñu ñuus la ci rek képp waaw kon nag yooyu yëpp wér wóoru ministre yi nekk ci dëkk bi ministre bi ci gën a wóor nga xam ne du sa du faussé délai du nax ñi ngi ñëw ci moom du la wax dibbut laa lay defaral dem defaral la foraake wala dimb foo ko fekk mi ngi liggéey ñu naan saa yi biteel bi mu yor moom moom du ñàkkub liggéey lu dëkk bi xat-xat mi ngi liggéey fekk yor benn biteel qualité bi nekk ci moom mooy tax ku ko xam rek doo ko bàyyi ku ko xam doo ko bàyyi tailleur yii tailleur bi ci dul jaay tissu jàmbur du fen du nax nit ñi du faussé rendez-vous moo leen gën a xat mbokki tailleur yi topp ci naan day daa daa am bay rek daa am nangam fekk dara nit booy def ku la xam jàpp la ku la xam jàpp la bu yàggee nga bëri nit mais bu dee ñaar ñoo xam fen kenn ka kooka dem keneen ki ci des du la bàyyi waaye dalay moytu fooy tàkke fooy jóge fooy dem doo dem fenn booy tailleur booy bo loo mën a def rek boole kook wóor rek nga xool léegi sa lépp dox jërul takki téere jërul naa ni saafara jërul def dara yow daal fexeel ba nekk nit ko am valeur ku garanti koo xam ne loo wax da koy def nga seet waaw sëriñ si ci dëkk bi rek sëriñ si nga xamante ne dañoo nekk ñu am fayda am fulla am valeur Macky Sall sax bu bëggee dikk Touba da leen di téléphoné sëñ bi de man damaa am problème sangam nangam ak nangam nu may def waaye sëriñ si nga xam ne maanaam dañoo rattaxle walla dara <laughs> président bi di leen woo ndax daan yii boo ko waxee xibaar ñëpp yëg ko de ah <laughs> su ko defee muy kaas naan man kilifa bu toll ne man duy xew ci dëkk bi kenn du ko wax fekk yaa yaa da ngaa sa lammi ah noonu la demee noonu lay demee ci lépp ci lépp mën naa sax yàqal nit sëriñ ak tey ab sa yëg lépp kon na ngeen ko bàyyi xel bu baax dégg ngeen waaw kon loolu rek laa leen doon wax tey moom dama doon waxtaan ak yéen rek ndax bëgg ngeen ko bindee da ko giñ dani tallaahi lay seen famu sansu xada inde xulubi si xayru xuda kon loolu moom ni nga ko waxee rek ku ne xam na ni ba nga nekk ca daara ja ah ni woo fa nag di cëf caaful meer yi xam nga sa bopp am nga gëdd am nga fulla am nga fayda te yii muy wax nii maa ngi moom taxoon nañ lu bari am naa ci firnde damaa dem ca wetu seen TV pour ñu xam ne dëgg la loolu benn meer jàpp ci benn loxo xale bu jigéen ñuy waxtaan ba ma ni ma ni borom def gis bi ma ñëwee nettali naa ko te fekkewu ko mun ma da ngaa xam kuy borom def gis ma ne ko mooy sëriñ boobu nekk école médié sall di ñaan mu ne man sama doom ji moo ko faj maa taxaw maire bi taxaw doom ji taxaw ma ne ko kii la mu ni ma waaw te lu ma ma sa def na ko man ak keneen ak keneen kon nag lii mu ñu doole doole waale na ñun ñëpp nan sax ci ak jub jube lépp jërëjëf mat naa ragal ci xarnu bi fajaajo moo ca gën a gaaw ci sëriñ baara yooni xodinal yooni xodinal bay ma jaay indi ka jaay